sëñ Touba bind na ci kataballaahu yooyu nga xam ne moom la bindoon sëñ Abdoulahat joxoon ma ci gis naa ci fu mu wax ne sunu boroom tabaraka wa bind na ne jëmm ji di bind xaraf yi yëkkati ko yëkkati na ko ba teg ko ci kaw yonante yi loolu bokk na ci kataballaahu yooyu man ni liir naa ko te mbindum loxoom la du lu ñuy sotti lu dul moom ci boppam lu mu bind la